asalaamaaleykum chers artistes man la ngoone Ndour maa ñëw di leen informer que coalition des acteurs de la musique tey demoon nañ ci suba préfecture pour déposer benn demande d'autorisation pour un sitting bu ñu bëgg def dans la discipline et dans la dans le respect des mesures barrières euh, le jeudi 17 décembre à partir de 15 heures à la place de la nation ex place de l'obélisque ndaxte euh, boo leen seetloo am na ñetti ko euh, arrêté yoo xam ne génnee nañ ko ci week bi pour tere ñu pour ñu exercer suñu métier te fukki weer a ngi nii euh, culture yëngatuwul kës néew lu ñu jotoon a am ci art yenn artistes ñu koy liggéey ci restaurant yi ak hôtel yi loolu dakkal nañ ko depuis ci week bi donc tey jii nag ñu bëgg ñaan nguur gi pour que mu taxawu gestuñu te xam ne ne que ne affaire bi mënatul continuer nii mënatunu mënatunu dem te bu ko mënatul dem nag da ngay xam euh, yëglu pour que ñu xam ne ne que ne il faut que ñu jël ay mesures urgentes pour ñëw ñu en aide bàyyi ñu exercer suñu métier parce que on est des responsables aujourd'hui maa ngi demander à ce que toute la communauté artistique bu yaa xam bépp discipline boo mën a nekk rek nga ñëw mobiliser ñëw place de l'obélisque le jeudi 17 décembre jeudi bii nii 17 décembre à partir de 15 heures pour euh, taxawu ñaxtu li pour que au moins des solution soit trouvées le plus rapidement possible balaa ñu noo suul te ñuy dund jërëjëf